xam nga mbiru su mbiru système éducatif dafa xaw a am ay ay ay jàngoro jàngoro yi nag mooy manqué manqué yi xam nga système bi ñëpp xam nañu manqué na ay jàngalekat euh, fi ñu wax ak yow nii presque lu toll manqué na lu toll ci juróom junni jàngalekat fi ñuy waxee nii ah manqué na aussi lu ñuy wax table banc école yëpp ñu ngi jàmbat table waaye manqué na aussi ay salle de classe.

loolu nag lañu tàmbali ci at mi euh, ñu décidé que président décidé que dafay jël juróomi junni jàngalekat juróomi junni jàngalekat yooyu nag dafay fekki ñetti junni ak euh, juróom-ñaar téeméeri jàngalekat yoo xam ne déjà euh, jël nañ ko dégg naa sax benn jàngalekat di wax benn syndicaliste di wax ni loolu amul mais tey boo demee ci CRFP yi quota bu njëkk bi mën naa waxee ñaari junni yi ak juróomi téeméer yi. ñu ngi leen former CRFP yi def nañ concours ba ñu ngi leen di former ñu <laughs> euh, ci dess muy junni ak ñaar téeméer bi euh, waa wa FASTEF lancé nañ concours bi ba bientôt da ñom tamit FASTEF daañu leen daañu daañu leen commencer former légui nak euh, ci jël mi mom bi juroom junni yi mom du concours ni muy ni muy démé moy wax nañu sénégalais boo xamni am nga digënté fukki at ak juróom-ñett ak ñeen fukki at daa nga mën déposer dépôt bi nak en ligne la bu njëkk bi en ligne la donc euh, bo bo boo fekkee am nga diplôme professionnel manam diplôme ñu kat bu ñu wax euh, CAP wala CAP wala KM KS euh, KSM wala diplôme bi nga xamante bi tamit euh donc pour maître d'éducation physique man nga man nga déposer bu fekkee aussi am nga bac wala bac plus manam bac wala licence wala duel wala euh, master wala doctorat tamit man nga déposer euh, dañu def une présélection jël euh, donc 7500 waaw donc bu ñu jëlee 7500 mille cinq cent yooyu ñooñu mën naa ñoom dañuy def li ñuy wax dépôt physique seen dossier yi ñu déposé woon ci en ligne dañ koy yóbbu dépp ko ci IAI déposé ko ci IAI ak IEF yi suñ paree nag ñu doog defaat beneen comité pour def sélection définitive alors bu ñu defee sélection nag dañuy am ñaari catégorie am na ñoo xam ne catégorie bu njëkk bi dañ leen a euh, ñoom du jar ñu former leen ndax am nañ diplôme jàngalekat ñoom dañ leen di jël rek affecté leen ci IA yi ak yi catégorie catégorie bi ci des ñoom am nañu diplôme académique mais amuñu diplôme jàngalekat ñoom faaw ñu former leen benn ñi ci CRFP nga xam centre régional de formation des personnes d'éducation mooy ñi ñu nekk élémentaire bi préscolaire bi euh ak daara euh, moderne yi ñi ci dess nak euh muy ñi nga xam ne ñoo dem ci moyen secondaire bi ñooñu leen di répartir entre FASTEF ak IGB pour euh, le schéma de de formation donc suñu nak euh daañu une décembre ñom dañu dellusi avril du donc fin d'année euh, certificat de fin de stage lolu moy je bi nga pour donc 2021 euh, 2022